أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني أوصيها بذريتها من الشيطان الرجيم أعوذ بك ربي أن يحضرون ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ñu ngi cof suñu nuyoo ci nuyoo suñu mbokk di ziar suñu njëriñu réew mi ak jàmm ci boppam euh, dana matale daanaka yoon wi ñuy nuyu itamit ak di ziar kii kilifa soxna Anta Ndiaye di ziar itamit mbooloo mi fi teew yëpp di sët di ay mbokk di ay jegeñaale di ay soppi di ay xarit di ay wóllëre te ñëpp kenn ku ci nekk cofeel ak bunt ak namm ak xeeñtu jëpp soxna Anta Ndiaye tax defe naa ci ñu toog ku ne war ngaa mën a am loo wax soxna Anta Njaay te du jeex sëriñ Sonia am na jàngat bu am solo bu def wala ay jàngat sax yu mu ci def ci jëm soxna Anta jàngat yooyu mun ñoo wan ne beneen bi ci toppaat dinañ dellu si ci wax dellu ci naka la dikkee ci biir kër ga mu nekkoon ak jëf ju rafet yi nga xamante te jëfale ko ci turu sëriñ nekkoon euh, magam nekkoon sangam bu ñuy wax sang nag sang ci ñaari wàll yépp lay nekkat te defe bu ñu dee càllale rek danañu xool te danañ xam ne soxna Anta Ndiaye euh, taxawaay bi nekk la waroon mën a am ci biir kër sëñ Mawla Anta Sall donte nag taxawaay kii ñuy tuddee soxna Anta Ndiaye Mbacke muy tur bi gën a siiw soxna aadi soxna Mbacke la tudd ñu tuddee woon ko mbokkam bee di soxna Astawaat te mu gane àdduna ci li ak junni ak euh, juróom-ñetti téeméer juróom wala junni at ak juróom-ñetti téeméer ak ñaar at ak juróom-benn ci jot soxna Anta Ndiaye la taarix wax ne moom lañ ko jox te soxna Asta Waalo ñu bëri xam nañ ni ñam bokkaloon di ay waajuram di ay kilifaam ñëpp nawloo woon nañ ko ngir jikkoom nawloo woon ko itamit ngir xam-xamam nawloo ci wàllu wéyjuram di doomu mamaara beneen bi ci toppaat soxna soxna Anta wéyjuram bu jigéen soxna kan soxna tuutu di doomu euh, soxna Yaasin Ba soxna Yaasin Ba ñun ñëpp xam nañ ni euh, mooy mbokkum soxna Aysa Kan mi jur maam ndax xam ni kon boo xoolee ci taarix rek danañ xam ni kon soxna Anta doomu bàyyi tey nekk ci sëñ Moor jóge wax nekkaat ci tamit euh, doomu li wolof di wax doomu bàjj kon nag ci wàllu woowu mooy comme ñun rek li ñuy def sëñ laaj di ko laaj ay sagar soxna Anta da ko a laaj kon ay sagar sëñ Moor wax nag jaam boo ñëwee ci sa kër sang am na loo xam moo war a nekk sa taxawaay ci biir kër gi soxna Anta jàng nekk doomu soxna yëpp alxuraan ci turaloon mu yar ko jàngal ko alxuraan jàngal ko lu bëri ci li mu war a xam ci wàllu jigéen ak ci wàllu kër jàngalaale ko itamit xam-xam yu bëri yu mel ne aw ak ay bayaan yooyu xamal euh, asawaaw siiwoon na ci nekk université càmmiñoo la soxna jaara soxna Anta Njaay moo ko jàngal soxna la Anta Kastuwaar soxna Anta Njaay nekkoon ci tamit ci zaay nit ku soppu li ñuy wax ñu suñu jamono ji jigéen bu rafet ndax càllale mënoon na ko may muy kàntaw yi nekkoon nit ku xeeb am taxawaay amoon martaba nekkoon pour lool waaye yar bi ñu ko ak borom sàmm diine soxna Anta Ndiaye tàmbale liggéey yi kon li sëñ bi indiwaat ci yoon bi euh, nekk na loo xam fekkoon ko ci baawoon ay kilifaam doon ko def sëñ bi gën ko dëgëral àggale ko ko boole ko ci ponk diine yi ponk euh, yoonu nit soxna Anta Ndiaye bu doon ay tool wëtteen ko bay su paree mu di ko pëccul suñ ci noppee ñu di ko cuub ñu di ko ràbb ngir di ko weccee ngir am ba faje ay leneen liñ ci waxaat mooy ni soxna a gën mën a jàngat mooy ne nekk jigéen du tere nga sàkk loo xamante ne alal bu lew la xam ne ko a jaay ci yoonu yàlla foog naa ne bu ñu seetee kaara mag ñi fi nekkoon ñëpp kenn am na loo doon yëngu lu la doon gën a may nga nekk def ci lu baax ci sa biir kër ak ñi nga dëkkal ak ñi nga nekk am bi yàlla dogalee sëñ moor war a samp kër sëñ moor ne day delloowaat sëñ Ibrahima awa ñëw teraanga bu ñu def yéene dafa sàkku ne kenn siiwal wax ji ba euh, ñu def jëf ji ndax ñu doon bañ mooy sëñ Mor Dam ñu nettaliwaat ne sëñ Mor moo soxnaam bu moo jëlaat lépp liy waxteef ak la doon moo ko defalaat xam nga sëñ Mor daanaka amul benn yoon looloo waral mu am fa sëñ am fa ñëpp wax nañ li ci sëñ wax ci sëñ Mbàkke am fa ne ñoom ñaar seen ñaari leer mën ta nekk loo woon ci suuf sëñ seen di maxtaar eh, di sëñ gaawaan ñëpp gën koo xam mu amaale fa itamit sëñ aafe mu nekkoon imaamu njaareem suñu borom joxaat ko fa itamit soxna xaati am na ngay jur soxna sa ture muy maam soxna xaati sëñ moo sëñ laal suñu borom joxaat tamit soxna ñu ko maamam benn bi jëkk bi mooy ne soxna am na moo moom moom màggal na soxna jaara yàlla moom ci benn moo wax ne ma ci wax ci ñoom ñaar moo tëdd e, sunu borom feeñal ko mu xam ne ci jëmmi soxna jaara ji lañu nar a amee nekk ji sang jamono waaye lu ci doon rek bi wax ji ñëwee ba ci sëñ moor anta sëñ moor nar a gàntal soxna anta njaay moo delluwaat waxaat ak sëñ moor ba sëñ moor nangu mu delluwaat waxaat ak soxna astawaalo ba soxna astawaalo nangu li siiwaat itamit moo woo soxna jaara wax ko ne ko ñun ñaar kat dañ fi nekk di sàkk lu baax ci biir kër gi li ñu war a def nag mooy kenn ku nekk waat wax ne lan nga nar a am fii ci biir kër gi sonante moom ba mu waatee dafa wax ne moom dana fa am jant ak leer jant ak leer bi di sëñ gaawam ak rakkam ji di sëñ aafe soxna jaaro wax moom i tamit waat xas ne moom dana fa am asamaan si muur ñaar ñëpp te defe naa ni kenn ku ci nekk ci ñoom sa jëf maye na beneen bi ñuy waxaat ci njabootu soxna euh, sëñ Mor Anta muy soxna Isa Jéey euh, way juru sëñ Masàmba Lat Joor moo ko jëkkoon yor ci suñuy nopp amoon benn buuru naar bu mu doon duggloo listixaar buuru naar baa ko ne soxna si nga denc sa biir kër feeg yeewi woo ko say jafe-jafe du deñ ndax am na kilifa bu nekk ci moom bu mu war a indi ci jamono te du yow yaay doon bàyyam te feeg nag yeewi woo ko nag say jafe-jafe day gën a tar rekk wax nañu liyaar na ko ko ay yoon ba mujj gi daf ko indi jëmm yi mu xool leen ci la ko ni jëmm jee la bi mu yeewee soxna isa ñu jël soxna isa dénk ko sëñ moor sëñ moor ne mënu koo yor ndax boobu yoroon na ñeenti soxna te moom du jéggi charia soxna anta dellu suwaat ne ko man jigéen laa ci biir kër gi te wàcceel la soxna moo ma fi indi woon kon nag yeewi ma man continuer nekk jigéen ci biir kër gi teewut ah, ma nga mën matali sa diine matale itamit li nga war a am ci sa biir kër gi defe naa na boobu moom li gën a yéemeeti moom ci soxna Anta ndax man moom dama naan moom mënuma ko moom yeneen jikko yépp jéemees na koo jàng waaye boobu moom xel sax daf ko musul xalaat mu dégg ko ci jamono ku nangu yow joxe sa place surtout que jamono jooju sëñ Mor tàmbale naa siiw barke bi tàmbalee dugg nit ñi tàmbale koo xam lu bëre tàmbale soppiku ci dundam soxna Anta nangoo nekk fa mu nekk te nangoo suturaal sëñ Mor kon nag loolu defe naa ne beneen jàngat la boo xamante ni moom xamul nees koy jànge waaye warees na cee xool li gën a yéeme mooy ne ci biir kër gi euh, donte suñu borom suturaaloon na sëñ Mor ba ñim ko booleel ñëpp benn càll lañu woon nekkoon benn mbokk kenn ku nekk xam li la indi woon ci biir kër gi ba kenn du jàmbat kenn du yokkat waaye soo Anta Njaay ci suturaam bu ko suñu boroom baaxee tey benn dara da koy def ci këll muur ko ba mu rafet daal di ne benn gone demal joxal ma ko sa wéyjur diw wala sa nàngam diw lépp rek ngir suturaal sëñ Mor Anta leneen liñ ci mën a jàngataat mooy ne itamit bi soxna jaara làqoo soxna Anta ci jëmmi boppam moom euh, yëgoon nag tawat joo xamante ni ndax dafa foogoon ni moom mënutoon a soxna jaara mu war koo mën a jiitu ci biir euh, jiitu ko ba amoon na yëg-yëg jum ci amoon ju taxoon ba moom wéradi woon na ba defe noonu ne day topp ji soxna jaara waaye comme dénkaane bi sëñ bi waxoon léegi ne soxna jaara daf ko dénkoon njaboot gi ci la yabalaat sëñ gaawaan ne ko dellul nga ni sëñ tubaa seen wayjuru jigéen daf ma leen dénkoon ngir ma taxaw leen te man am na yëg-yëg woo xamante ni yëg naa ko sama yaram yooyu bu gaawulee man danaa ko fekki ci lépp day wane euh, euh, defe naa ci la sëñ bi bind benn téere ne soxna Anta na ko takk ba bu ñu seetee ci taarix soxna Anta dund na fi euh, presque su mataat 60 ans ci ginnaaw waaw ndax dund na lu ëpp 90 ans lay door a làqu sëñ bi dem na jul ci géej gi dem ci jéeri gi ñëwaat ceeyeen ba nekk njaareem ci lañ koy door a wax ni ko Soxna Anta làqu na te Soxna euh, Jaara moom 1866 la fi jóge bi mu tanee nag ci la Soxna Anta wuutu boppam ci njabootug sëñ Tubaa te lii firnde ji mooy ne bi fi sëñ Mbàkke Anta jugee tëdd ci njaañ Euh, soxnaam si nekkoon soxna jature nga xam ni doomi soxna faati sukuraa la moom sëriñ maam ballay moom euh, sëñ maaram soxna anta moo doxaat itamit ne bu doon ma de soxna faati mi du génn kër gi nañ ko dékkaat sëñ tubaa ba loolu antu sëñ bi ci la am taawam bii di soxna faati ja leneen li koy wanewaat itamit soxna anta moo euh, jëlaat njabootam nas leen ci benn buum ba jël euh, sëñ gaawaan ak i rakkam yépp waxaat leen wax ji mu leen waxoon ne bu leen kenn jiitu ci seen mag ji te lu jiitu loolu euh, soxna Anta yar na njabootam gi ci bëgg sëñ Tubaa ak bëgg seeni mag bëgg seeni doomi baay yarin woo xamante ni nettali nañ bi sëñ gaawaan newee daara ja sax di jàng alxuraan te sëñ bi demoon seeti ji ko fee ca bar Bargny sëñ gaawaan topp jéem na toppaat sëñ tubaa ba réer bi yàlla dogalee ci seeni pexem ba euh, sëñ gaawaan feeñaat biñ ko waxee dañu mënumaa tàqalikook sëñ tubaa kon loolu am na misaal boo xamante ni bu mu teel a wane ci nos giñ leen nosu foog naa sëñ Chouaib bu wax na ko sànq yarinu mag ñi moo tax ba ñoom seen biir ñu bëggante woon doyloonte nawante soppante wóolonte ba kenn du ci seet ki la mag wala ki la gën a féete ndaw kenn ku ne danga nga seet xam ni kii suñu boroom li mu def ci moom def na ko ci ñoom ñëpp ñu ànd boole nangul ko ko muy góor muy jigéen soxna Anta itamit yàlla dogal na ni wuutu googu ci soxna jaara li sëñ gaawaan di am am barke mësta nangu tàqalikook sëñ tubaa ba sëñ bi sañ demee mbàkke kajoor ak ba mu dellusee ba mbàkke baari jaare ko mbàkke bawol daaru salaam ci sanc wa ak sancuk tubaab bi soxna Anta Njaay bokkoon na ci saalihaat yi nga xam bés bu set ñoo doon ànd ak sëñ bi ba bëri na sax lu ñu daan nettali wala lu mel ne yenn woykat yu mel ne Cheikh Moussa di laaj ci yoon wi Sëñ Tuubaa daka daan wax demal laaj ji ko sunu wéyjur Soxna Anta ndax fekkee woon na ko sëñ bi bi mu demee géej gi ci la Soxna Anta di door a nangoo delluwaat ànd ak sëñ gaawaan te defe naa ni ca foofu sax la mujj noppali ko Soxna ngi làqalu atuk te ci lañu denc ko fee ca deqale ci sëñ Mor lépp ngir mottali kóllëre googu mu amoon ak sëñ Mor ak njabootuk sëñ Mor defe naa nag euh, jàngat yi ñu ci mën a am mooy ne pas-pasu njabootuk sëñ gaawaan ak bëgg euh, njabootuk euh, sëñ aafeek njabootuk soxna Anta Njaay gépp ci sëñ Tuubaa ak jaayante gi ñu nangoo jaayante ak seeni mag jaayante kook sëñ tubaa nangu koo liggéeyal gëm ko wóolu ko doylu ko lépp ci soxna Anta Njaay la soqi ko ndax moom mii seen wéyjur da daan euh, joxe ay àddiyaam ci sëñ bi sas wu sëñ bi mës a sas mu bokk ci ñi cay jiitu ba bi sëñ bi demee ci yoonu géej gi ak bi mu nekkee ci yoonu jéer yi yépp Soxna Anta Ndiaye ni ki murit yëpp da daan dajale ay addiyaam di ko yónnee sëñ bi nanguwul woon ba bokk ci ñiy des ginnaaw nangu woon itamit euh, lépp lu ko war itamit mu taxaw ko taxawwaale ko njaboot gi defe naa kon loolu dana waral ne soxna Anta Ndiaye fépp fu soxna jaaro waroon taxawoo sëñ Tubaa ci zaayir moom mi fi nekkoon taxawoo na ko lu ne toll wa taxaw ko lu ëpp kon nag la sëñ bi amoon cofeel ci njabootam amoon ko cofeel ci ñoom defe naa ni loolu du doon loo xamante ne lu ñuy nattable la moo tax la Cheikh Moussa doon way ne soxna Anta Ndiaye wàcc na am na yaaram am yilimaam gàlliwul ci maaram loolu ñun ñëpp mënees na cee jàngataat lu bëree bëri bëri jamono ji nag jàngat yi bëri na am na loo xamante ni sëñ yi bu tàmbale na koo jàngat ci dunduk soxna Anta Ndiaye kenn ku nekk ci ñun ak nax-naxi jamono ak tartari jamono war naa tax nga mën a di yeesalaat lii nii ñu di ko nafaraat ci biir ñun ñii suñuy daara yi ñuy jàngale ñu jël ay modèle yii nii modèlu soxna Anta Ndiaye modèlu soxna Jaara modèlu soxna Faati Isa Jon modèlu soxna Isa Jéey modèlu soxna Absatu Jaxate ñooñu ñëpp ñu jël ko di ko jàngalewaat suñuy école ndax suñuy njaboot ñoom it dellu siwaat ci cosaan xamaat ñoom seen bopp xam ñooy ñan defe naa nag jamono ji fii mu toll nii bokk na ci yi ñu war a gën a teel jamono ji euh, fexe ba mu nekkaat ci suñuy programme mooy ñu fexe ba njaboot bu jigéen gi ñu am ñu toqantaat leen ci jëf yi mag yi daan jëf xëy na am na ci yoo xamante ni moom lu yéeme la waaye la sëñ Saliou doon wax ku jéem roy ju baax da nga raw sa ay maas kon nag loolu lañu amoon lu ñu war a mën a barkeeloo ci euh, bisu soxna Anta ji ñuy jéggaluwaat bu baax ci kàddu yi ndax defe naa ni kenn ku ci ne rek waroon naa mën a waxtaan lu ëpp lii lépp ci jëmm sonn Anta Ndiaye ji nii ñuy euh, nuyoowaat encore di ziyaaraat kilifa yi fi teew yépp tey jéggalu ci kàddu yi di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah taala barakaatu.